yi fi teew waa Mbàkke Bawol waa Njaareem waa Touba man soxna yaay buy maa leen di nuyu di leen ziar di leen jéggalu ci guddee bi di leen sant ci seen taxawaay ak seen teewaay balaa dara ngeen may ma ma gërëm sama borom kër bu baax gi Cheikh Abdou Karim Mbacké maa ngi koy yang yàlla yàlla ada ko fi yàlla bàyyi te mu ànd ak wér nekk ci wetam moo jur ma am xolu ak ay kon Mbacké maa koy ñaanal mu te ak ak Cheikhul Khadim maa ngi nuyu di ziar bu baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi teew ki nga xamante ne moom moo fi teewal madame la ministre Victorine Ndeye maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar soxna jéggi sama xarit sama genn wàll nuyu naa la ziar naa la maa ngi nuyu di ziar ki nga xamante ne moom moo fi teewal Benno Bokk Yaakaar di monsieur le ministre Dame Diop ziar naa la maa ngi lay ziar bu baax kontaan naa yàlla na yàlla fay maa ngi beral nuyoo ñi nga xamante ne suñu future première dame incha rabbi ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla def madame Aïssatou Bily Ba ñi nga xamante ne ñoom la fi yabal nuyu naa leen ziar naa leen yaay Néné Aïcha kàddu yi rafet na yow lañ la doon wax démb dañ lay wax tey yow jaraw lakk bu goro yépp doon xool ci yow naa benn jigéen buy sëy du am benn jafe-jafe si sëyam jërëjëf ci ci ñu sëyalee suñu mag ju baax jooju sëy bi baal jërëjëf jërëjëf délégation bi nga àndal bugguma lim di juum waaye kenn ku ci la ma seq ak yow xam nga ko nuyu naa leen bu baax ziar leen di leen ñaanal tànk yu tedd yi ngeen ñëwee yàlla ngeen delloo noonu ci barki rasulullahi sallallahu taala alayhi di ñaanal suñu candidat suñu futur président le premier ministre Amadou Ba yàlla na ko yàlla defal jàmm sàmm ko ba keroog mu jël réew mi te bu ko jëlee yàlla na ko yàlla dëgëral ba lépp jaar yoon ngeen jéggal ma balaa dara ñu sant son excellence le président Macky président Macky la ma la waxoon keroog ci remise de parrainage yi loolu laa lay waxaat yow nga xamante ne yaa am vision bu éclairée ba nga xamante ne yaa ñu tànnal kii nga xamante ne jàpp nga ne moom mun na laa wutu ci réew mi sal Ngaari mënuñu laa fay ci li nga defal Sénégal mënuñu laa fay ci li nga taxawoo mënuñu laa fay ci na nga téye suñu kilifa diine yi mënuñu laa fay ci ci nga téye sëñ Mountakha Mbacké Bachir yal na la yàlla kàttanal bàyyi la fi sàmm la sàmm sa ay njaboot ba lépp lu la Sénégal yéene li nga defal Sénégal mënuñu la koo fay waaye yàlla mi am fay yal na la ko yàlla fay sàll jërëjëf ñu ngi dellu di ñaanal suñu futur candidat le premier ministre Amadou Ba moom mi nga xamante ne maîtriser plan Sénégal émergent la candidat de la continuité ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla yàlla dëgëral ko gàttanal ko ci barke ba Seydina Mouhamed alayhi salaatu wassalaam bu loolu jàllee ñun ñi nga xamante ne lii fi dajale tey mooy suñu démarrage activité ànd ak yaay buy fal Amadou Ba activité yooyu nag pour matériel dañu bëgg ànd ak jigéen ñi jigéen bu nekk war a delluwaat gëm boppam delluwaat liggéey ñu bàyyi jigéen ñi nga xamante ne dañ leen di jël di leen di sànq tey ñu am ay dignité yoo xamante ne daf incarné ci ñoom kon def nañ ay formation yoo xamante ne fexe nañ ba jigéen ñi ñoom seen bopp ñu gën a gëm seen bopp xam lan da réew mi mun a xaar ci ñoom ak ñoom lan dañ mën a defar réew mi ci loolu moom moo tax ñu defal leen ay formation ngeen baal ma balaa may dugg ci loolu équipe bi nga xamante ne ñoom ñoo jóge Dakar ñëwoon di former jigéen ñi ma leen di yaan jóg tàccul ma sama yaay Anta Badiane yaay yoo xamante ne aw ma sa fay dama bëggoon a sama discours yoo laa bëggoon a mujjee ndax xam si ma xam li ma yéene waaye Diallo yal na la yàlla fay yal na yàlla sàmm la sàmm sa njaboot ba ñoom ñu fekkee lépp yow ak sa équipe bu dynamique bi nga xamante ne ñoom nga àndal ñëpp maa leen di sant di leen gërëm jigéen ñi mu war ngeen ne leen yéen ay jàmbaar ngeen gën nañu gëmaat seen bopp man dafa am loo xamante ne moom laa wax ak jigéen ñi nee naa leen ku may xaar ci xaalis bu la yeboo nga dem nee leen ku may xaar ci caaxaan bu la yeboo it nga dem man li nga xamante ne moom laa seq yéen mooy kër sëñ Touba moom moo tax ma taxawal ni ndeyu daara dëgg la ne bëgg naa ñu ñëpp ñu ànd jóg pour xeex pour réew mi loolu kenn koo xamante ne jigéen bu am ful la nga am say fayda gëm sa bopp taxawaayu réew mi sa loxo war na cee dugg te ñu jëm ci loo xamante ne kenn ku ci nekk war na cee teg loxo.

ñu dem xooli ak ñi nga xamante ne ñooy suñu gan yi li nga xamante ne moom dañu liggéey ci fan yi ñu weesu ndax dañu jël lu tolloog euh, juróom fukki groupement groupement bu ne ñu jël fa ñaari jigéen jigéen yooyu mu ñu nekk téeméeri jigéen jigéen yooyu formé nañ leen en leadership féminin forme nañ leen gën a gëm seen bopp formé nañ leen ci saabu

jigéen ñi nañu gën a jàppalante na ngeen jàppoo jàppal jàppal jàppalante ci seen biir loolu mooy ñun suñu créneau suñu diggante ak yéen ñi nga xamante ne ñoom dañu formé dañu bëgg bu ñu delloo ci seeni ay groupement defal leen ay formation ñoom it te jumtukaay bu ñu ciy soxla bu soobee yàlla dinañ ci taxaw ba ñu am ko incha allahu rabbi léegi nag li nga xamante ne moom moo ci des boutique yi nga xamante ne andil nañ leen ko muy les boutiques de Yaay Boy bëgg nañ lépp loo xamante ne consommons local mu ngi ci jigéenu Touba yi tàmbali ko lépp loo xamante ne ceebu mbay la dinañ ko ci jaay sees am nañ projet boo xamante ne pour implanter lu ëpp 100 boutiques yu may mel nii fii ci diggante Touba ak Mbacké yàlla nañ ci yàlla jàppale léegi nag li nga xamante ne daal mun naa leen ko wax mooy lii du dakk yaay puy jël na ñaar fukki millions ak juróom jox ko jigéenu ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci biir groupement yi bëgg cee liggéey loolu bu ñu ko defee bëgg ngeen gën a seen bopp xam ne am na ñoo xamante ne ñu ngi fii ci dëkk bi jàppale leen rek moom moo leen tax a jóg kontaan nañ bu baax a baax a baax di leen doolee ñaax ci autonomisation de la femme ñu ngi leen di ñaax bu baax jigéen ñi gën leen a gëm seen bopp arrêté leen ñu leen di doyee loo xamante ne yëf yu doyee di dafa am ay xale yoo xamante ne ñëw nañ seet si ma barke démb ñu tuddee seen bopp lu woon wonni na kon dama bëgg jigéen yi nga xamante ne ñoom it ñu ngi nekkoon ci leneen loo xamante ne bokkut ak yii nga xamante ne moom moo leen mën a ubbi économiquement nañu dellu taxawu seen bopp mun a taxawu seen i ay njaboot incha allahu rabbi maa ngi gërëm di sant bu baax teewaayu député euh, mes honorables Koumba Diagne Cissé ziar naa la bu baax. honorable Ousmane Mara Diop maa ngi honorable Mbathio Diakhasso ziar naa la bu baax délégation honorable Dior Meng maa ngi leen di nuyu madame Mbaye sama yaay sama xarit sama waxtandoo ziar naa la bu baax soxna honorable Mama Oumou Ba moom it maa ngi koy di sant bu baax jigéen ñi nga xamante ne ñoom laa àndaloon nekk ci liggéey bi ba tey lii agsi foog naa ci loolu bu ngeen ma mayee ma lim ci ñett war naa doy yaa may jaw maa ngi lay nuyu di la sant soxna Xadi Jóob maa ngi lay nuyu bu baax di la sant bu baax soxna Ndey Loo sama xarit nuyu naa la ziar naa la foog naa ñett ñii nga xamante ne mbootaay yépp ci seen gannaaw lañu bootu ak ñi nga xamante ne seeni doom lañ bu ma leen tuddee doy na bu loolu weesoo yàlla daf ma boole équipe boo xamante ne ay xale yoo xamante ne dañu gëm seen bopp te awma seen fay ñi nga xamante ne ñoom ñooy cocher national bu Touba di di sant ci seen taxawaay bu baax a baax a baax mu ne moo leen fay mais yàlla bi am fay yàlla na leen yàlla fayal boppam Abdou Bigué Patña yéen ñi nga xamante ne yéen topp leen yaay bi waaye da ngeen gëm yaay bi maa ngi leen di ñaanal ngeen yegg fa ngeen bëgg a lu tax ma beral nuyoo taala du ma ko boole ci cogère léegi taala bu yaay bi laa koy wax kontaan naa bu baax seen taxawaay yéen ñëpp maa ngi leen gërëm di leen sant maa ngi gërëm sama waajur bu jigéen bi nga xamante ne moom moo si toog ma koy ñaanal bu yàgg si loolu di ànd ak wér ak ñi mu àndal ñëpp di gërëm nuyoo soxna Elisa sama tata bi nga xamante ne moom it dafa gëm yaay kuy gërëm naa la sant naa la maa ngi gërëm bàyyi àll si la sama papa bàyyi Maguette Diakhaté maa ngi sant di leen gërëm na loo xamante ne waxoon naa sëñ Pape na ma ko waxal waaye dama koy waxaatal sama bopp le ministre des sports Lat Diop koy gërëm bu baax di sant ba yemalewu ko ba mu wóor ku ko woo ci la ngi gërëm di sant le ministre Victorine Ndeye démb ci heure bi maa ngi toog moom mu amoon yéene ci ñëw waaye dernière minute président am fu mu ko yónni moo tax gisuñu ko waaye moom moo ko waroon a présider di gërëm le ministre sàmm Ndiobène Kane ci taxawaayam taxawu na bés bi bu baax a baax a baax ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal ngeen delluwaat ci jàmm di leen ñaan it li nga xamante ne mooy boutique yaay ku yii ñu lancé yéen ñëpp dañu bëgg ngeen gis ci seen bopp bu ñu jógee kenn ku ci ne na xool ay groupement ñu xool naka dañ ciy taxawee léegi nag dañu bëggoon matérialiser événement bi joxe ñaari diplôme ci ñu doon def formation en produit euh, céréales ak ñu doon def japonisation ak javelisation ñu ñëw symboliquement ñu remettre leen diplôme yi léegi dama bëgg soxna jéeg